waa loolu jàngat bi ñu def mooy day moon day wane rek ne parti bu mag la. Mm. wala coalition bu bu mag la. day wane aussi ne ay kàngam ñoo ci nekk kàngam yu bari yoo xam ne kenn ku nekk war naa mën a jiite réew mi donc c'est plutôt une richesse. Mm. ndax tey euh, xañ na loolu moo gënoon ñu ne président d'abord buñ ko sargalee ci li mu def parce que loolu moo war a jiitu lépp. ndax dafa def lu rëy ndax ñu baree bari eh, dañoo xawoon a amul tiit ñi amul jaaxle ñenn ñoo si bëggoon mu dem ñenn ñoo si ne ko boo demee ñu jàppale la waaye moom kat mu ne man bàyyi naa fii laa yem li ma réew mi defal ak li ma def ci réew mi fii la ko suñu borom yemale. kon loolu aussi quand même foog naa moo ñu war a jiital sax nag ci sant ko ci gërëm ko ci félicité ko ci eh, eh, kon li ma doon wax rek mooy tey bu demoon bay dem. ñu ne amul kenn ci coalition bi wala kenn wala ñaar ñoo fi nekk ñu war a mën a jiite réew mi dafay mel ne sax ndonoom des na ci ay kàngam yu mu àndaloon waaye nag dafay réew mi fukk at ñaar ànd ak ay kàngam yu mag ñooñu aussi am expérience yu état euh, ci ci wetam euh, kon jaadu na xañ na ambition yi feeñ ci waxtu wi euh, waaye man jàpp naa ne moom bis bu demee ba ne diw mii laay jiital ci li ma jort mooy ne lu ëpp quatre vingt pour cent coalition bi. Mhm. danañ ànd ca la mu wax. Mhm. la ca des nag kamit joxoñ na ko yow laa jiital moom aussi da cee am loo xam ne moom moo ko war a dox. Mhm. su boobaa nag kooku nag moo war a jël sol aw dàllam euh, benn benn yi nga xam ne jàpp nañ ne ànduñ ci li nga xamante ne mooy li am. dem nag toog ak ñoom waxtaan ak ñoom rassurer leen li nga xam ne aussi mooy seen place dispositif bi nga xamante ne bii moom la ñu teg pour dem ci élection yi. aussi ñoo ñooñu jox leen la nga xamante ne bi mooy moo toll ak gëdd gi nga xam ne moom la ñu moom la am. kon mm-hmm. pour yow la plura la pluralité des candidats c'est plus une force que une faiblesse pour vous. c'est ça montre la richesse et la vitalité la coalition la ca des nag ay mécanismes la yoo xam ne moom la ñu teg président boobu léegi nii waxtaan ak nit ñi euh, jox na président Moussa Niass aussi muy waxtaan ak nit ñi donc woowu rek lu am solo la ñàkk loo xam ne moo ci moo ci juddoo mais ak lu mën di am. au finish moom mooy toog jël décision décision boobu la bis bu ko jëlee du ñàkk ay benn benn mën naa sax bañ a am yoo xam ne xañ na loola du leen du leen ah ñooñu nag su boobaa aussi dañuy continuer di waxtaan ak ñoom parce que tey li ñu soxla moo di ne fédérer toute la coalition Benno Bokk Yaakaar mais même au-delà de la coalition Benno Bokk Yaakaar aussi dem ci Sénégalais yi parce que aussi bu ñu fàtte ne Sénégalais yi ñooy fale ñi nga xam ñooy politique mi boo ko doon xayma motul sax peut-être 10 ñu nekk dans les partis donc sénégalais ñooy fale ñu ñu toog seen ay kër yor seen ay ay ay carte des politiques intéressé wu leen duñ ko sa waxtaanee waaye bu ca bis ba ca dimanche ñu xëy def jël seen carte sànni ko mhm. donc kon aussi dañuy soxla wax ak ñooñu am ci loo xam ne mooy lu gën a bari ba am chance am plus cinquante plus un buñ ci àggee mhm. kon du ne c'est une c'est une force mais en tout cas ça montre la richesse et la vitalité de la coalition Benno Bokk Yaakaar